am na beneen mbir boo xam ne tamit président Bassirou war nga ci wax littoral bii ñu tabax def naa ci cinq reportage moo tax ku ma ci signalé te dama ne dama sonn du ma ci defati reportage te xam naa sax man léegi ma jël vacances noppalu tuuti mais on se rend compte que mais liñ cafar cafaree affaire li am na koo xam ne par exemple boo génnee kër makisal ci Mermoz da daan tabax benn immeuble mais ci diggante période élection yi bañ koy reporté ñu dañ daan tabax guddi ak bëccëg loolu président Macky Sall mënu wax na gisuko ko romb naa fa man photo ko muy gaawtu parce que bëgg nañ mettre devant le fait accompli bëggoon nañ mettre tout le monde devant le fait accompli donc quelque part chantier pax yi dafa bari dafa bari donc nag dafa am lenn aussi patience la ma daan yàgg wax ne ko affaire réforme institutionnelle yi affaire réforme institutionnelle yi man jàpp naa la du luy mën a xaar déedéet voté nañ seen loi d'amnistie mais looy def ak famille victime yi ba tey am na ay détenus yu nekk ci biir kaso bi lamin saar bu nitu dëgg Lamine Sarr bu nitu dëgg mais ñëpp d'accord nañ ne fi mu nekk ni mi ngi ci biir kaso ba tey ji donc quelque part il faut que loolu ñu bàyyi ci xel am na ñu nekk ci biir kaso bi ba tey ji te nee naa leen lii xew moom ku ci gis sa bopp sénégalais yi jóg mobiliser tour seen deret ñenn ñi ñàkk seen bakkan maa ngi koy wax ci prestation serment bi ñoo toogoon foofu ne ne leen ñun sax yàlla ma kattal lañu ñu may ñu bakkan ba tey jii ñu toog ci biir euh, toog fii di fekkee lii mais am na ñoo xam ne fekkee wuñ ko am na ñoo xam ne fekkee wuñ ko martyr mais ñom seeni njaboot bëgg nañ xam lu xew donc quelque part je pense que euh, c'est pas sa première sortie mais c'est son premier discours à la nation def un discours demb dégg nga ko wax na li nga xam ne

te ñëpp mënuñoo bokk ñu am poste te ñëpp mënuñoo topp ndiiraan bi dafa am benn instant boo xam ne nag c'est la république qui en place ñu arrêté lépp luy folklore wax naa ko ba la passé lépp luy euphorie ñu teg parce que liy xaar li woote ak liy xaar dafa bari li gaa woote Sénégal yëpp di leen dégg ñu leen ci xaar dafa bari te lol len rek mo lako meuna may nga am froideur il faut froid motax damay wax sank sama ben xarit maneko ko ku jël li Ousmane Sonko dundu ba tay yalla sargalé ko li ku ko jël comme model lan la ko presse bi yakul lan lañ ko tuumaalul lan lañ ko waxalul lan lañ ko sosolul lan la ko bi deful mu muñ ko japp ko ne pat diko ko wolu sun borom gem suñu borom enena la doyna na focus nak ci li nga xamne mom moko intéressé lu ko intéressé moy lan ay ci len man li moy sama projet nañu jubanti rew mi ñoñu doon wax ci mom fa lañu mujjé tay mom Yalla, sargal nako ko ah. fal na député fal maire té yalla def nako mu fal président de la république nek premier ministre mang koy wax bind nako ko de l'administration, aujourd'hui il est le patron de l'administration. administration de l'administration, aujourd'hui il est le patron

parce que bu atte di am askanu Sénégal atte nañu ak ñëpp man sama morom askanu senegal atte nañu ak ñëpp am na ñu ma bokk corporation ba ma duggee kaso ma dee moo leen gënaloon yàlla atte nañu ñëpp askanu senegal atte na ma ak ñoom waa ndam da ko gën a mën a rëy munta nekk munta nekk ce n'est pas possible habitude bobu ñu jël pendant des années ne pas se disperser bul nek di tontu bul nek di wax dara nekkal yow ci li nga bëgg nek focus ci. ñu dem ci le 24 mars sénégalais yi ci limbu takko takkoo takku fekk ci la yow ci li nga daan wax ba xana yàlla àtte nañu nag waaw. ku loolu naqadi ba ngay ratatat di wut di sos di inventé ak yooyu benn réponse demal nga clamé yàlla demal nga dee nekk néew clamé ji yàlla point barre mais personne je dis personne personne mënul am tax nga ñëw toog fii di perte temps xam nga li ñu def ni tey ji décortique le discours de Bassirou Diomaye Faye wax leen ne leen discours bi lii ak lii ak lii la wax mu ëpp solo parce que yow boo génnoon ci mbedd mi ñëpp ñooñu di wax yow nga génn ci mbedd mi ñu génn ci mbedd mi askan bi war a atte yow la ñuy topp ndiraan ndax sopp la bëgg la ñoom duñu tekki dara donc il faut te loolu mbiru yàlla la nag nangu dogal mbiru yàlla la mbiru yàlla la moo tax damay wax ne la <laughs> li al maktum di wax ak ah kooku daf maa mere luma ci xam dafa ci dara Boy mere da ngay wala boy da ngay tal waye man lima vous wax bi de Netflix buma waré waree li wax ak gaay wax ak genn parce que président de la République genn wax son premier discours waye képp kuy ci man ak ci kenn laa xama xam ma la jàppee néew te man duma ma xuloog néew parce que ku dugg si matière du wax ak néew yaa tooñ sa bopp parce que dula la mës tontu